maître Moussa Diop ci boppu Dakar dem dikk la yéenekaay yu bari xëyee ci alxamis ji ñetti fan ci weeru septembre 2020 l'observateur ne waxi troisième mandat aw lay rek la waaye la ko dem loo ca Dakar dem dikk mooy rapport ci tolluwaayu kër ga di ci mbiri kopp jafe-jafey kër ga laxasu woon mbas mi ñëw daal di ko gën a taral dafa dem ba daanaka bouton bi xonqee fu ne ba yenn ci banque sax wanoon ginnaaw Dakar dem dikk observateur ne bi ñu ko woowee téléphone nag moom maître Diop la mu wax ca tegu ca baat beneen mooy gërëm na président Macky Sall ci dàq gi yéenekaay bi ne la mu bind nag ca mooy am ngërëm ak cant jëmee ci président Sall mi ko may jaare ci pal gi ca bopp Dakar dem dikk mu ne diirëb juróom-benn di at mu jariñ ci wàllu xereñ ak ngor waa Sénégal Sud Quotidien fësale nataalam moom maître musaa Diop ci xëtam bu njëkk yéenekaay bi bind ne Macky tëbal na Moussa Diop la tribune xëy moom daal di wax waxinu transport ne terminus ngir Moussa Diop Le Quotidien it naka noonu Moussa Diop mu nu yóbbu ca dépôt ba la nu bind yéenekaay bi ne nag ko koy wuutu di magistrat politicien bi di Oumar Boun Khatab Sylla laas ne maître Moussa Diop mooy ñetteel bi loru ci ñetteelab mandat bi Vox Populi ne troisième mandat boobee mu jàppee woon ab coup d'état su doon dafay am moo ko jural dàq gi waa pale ba nag yéenekaay bi gis ne dañuy rafetal ak lay rek naan yorin la wàllu gestion bu bon ca bopp daka mandat dara du la ca fekk ku ci mel ni Mbaye Ndiaye bu gazé leen ñeneen waaye boo waxee safaan wa rek yat wa dal moo waral ñu ne bu ba mattoon Sori Kaba ak Moustapha Diakhaté daal di xuri maître Moussa Diop Oumar Boun Khatab Sylla mi jiite léegi nag Dakar Dem Dikk la juddoo dib magistrat nekkoon ba fii ne njiital mouvement politique bi di valeur saxaar gi war a daw nag diggante ndakaaru jam ñaajo ay BD TER bi Le Soleil xëy wax ñu ñaareelub xaaj bi ñeel boobu TER ak ña ca war a jàpp ci wàllum koppar France ca la na ko noonu it banque africaine de développement ak banque islamique de développement ca kër gi nag di King Fahd Palace ak taxawu war na fa jëmee ci liggéeykat yenn yi ndax ci les échos lu toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukki liggéeykat ñu ne ña nga fa boobaak léegi ci chômage technique ginnaaw mbas mi ca seeni payorit lañu cay jot mooy dañu ko xaaj ñaar soxna si di Véronique Ndour di délégué syndical foofee naan ci yéenekaay bi yëf yi métti na foo ko natt wees na fa am na fa sax mu ne liggéeykat yoo xamante ni dañuy wërwërloog seen borom kër yi leen luyee noo fay am ca ñu mënatunoo joxe dépense ba ñenn ñuy xar ci ci yooyu jamono liggéeykat yi takk ndigg yee sonn mu ne am na fay directeur yu fay kuy million ci chambre de commerce am Ndakaaru moom la fa fës réeroo diggante njiit la Ablaye Sow ak Serigne Mboup mi jiite chambre de commerce bu Kaolack yéenekaay bi di l'info xëy tontu njiital chambre de commerce am Ndakaaru ci moom Serigne Mboup mu ne wooteeg budget gi nag fa la coow la ne jib moom Serigne Mboup la mu gisoon mooy ni danoo war a séddale koppari chambre de commerce am Ndakaaru mbooloom fukk ak ñeenti chambre de commerce ci diwaani ca loole du li nga xamante ni moom la yoon wax mu ne Ablaye Sow ne fi yëf yi gën a tare nag mooy fi Serigne Mboup doon sàkkoo poste fii ci Ndakaaru ca nekkoon ba noppi njiital chambre de commerce ab Kaolack mu lànkal ko ko le témoin ne bureau chambre de commerce am Ndakaaru indil nañ tontu patron bu CCBM Serigne Mboup dàqunu sax xalaatab yóbbu ko ci yoon ndax diffamation ak yeneen wàllu politique enquête mu xëye mooy kàkk gi yëf lu ñeel élection gox bi laaj ana kan nag la yëf yi opposition buy nelaw mel ni mu ñu pikiir ak majorité di parti fare nguur goo xamante ñoom dañoo laxasu daanaka ci xeexab coronavirus bi tolob bi Moussa jaw la mu gis moom ba tey ci yéenikaay bi di enquête mooy bu fekkoon ni amal nañu yooyu élection gox-goxaan ci waxtu yi jàpp opposition bi ay sagari neen lay dese ñu jeexalee làmb ji ak ku ne xaar demuk Aliou saar ba tax ñenn ñi sax daal di faf ngemb sunu làmb ñëw ci juróom benn kàngam yu ñu ci tudd ñu ne ci wutu gi Cheikh Tidiane Ndiaye ca la Mouhamed Ndaw Tyson Maysa Ndiaye Babacar Diouf Keba Kanté Djibril Seck Zos moom ci yéenekaay bi ne Mohamed Ndao Tyson la woteel ba tey ak sunu lamb leeral ak weet diggu tukkee ci groupe Futurs Médias ci kuréel gi ci yittoo wàllum événement di Sénégal Entertainment Group jaaree ko ci Maawu Cissé mi coordonnateur bi lu jëm ci xibaar yi lam-laamee naan dañuy baare yógoog bëgg combat bu Gris Bordeaux GFM ne dara du ca lu wér